السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على من بعثت رحمة وهداية للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين wa baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi seetaan seen tele BTV ànd ak seen mbokk Pape Barry seen émission yóbbalu koor fa tabarakallahu ñu kilifa diine kilifa aada yi di leen ziar xaq ñaan koor gi yàlla mu nekk sunu mujj koor di ñaan waaye jiituñu yal na yàlla yërëm leen yal fa tabarakallahu ñaanal ñi nekk ci hôpitaux yi yal yalla yàlla wéral leen yal na yàlla saafara leen waaye duñu fàtte mukk ñi nga xamante ne caabi féete leen gannaaw yal na xettali leen ba ñu delluwaat njaboot fa tabarakallahu ñi am ay aajo it yal na ko yàlla saafara bi jaahi taaha alayhi salaam fa tabarakallahu di ñaan réew it yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla dolli jàmm fa tabarakallahu yàlla def na fi jàmm sax waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dolli si jàmm ji eh, mbokk yi tey nag seen yóbbulu koor ñu leen andil fa tabarakallahu lii nga xamante ni moo di sàmm say cër sàmm say cër nag moo di xifzul jamii jawaarixihi fa tabarakallahu boo demee si alquran yàlla mu ngi wax ni al yawma naxtimu ala afwahihim wa ay aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaxsibuun sadaqallahu alazim mbokk yi borom bi subhaanahu wa dafa wax ne ëllëg yowmal qiyaam yàlla dana wax loo cër yépp cër bu ci nekk mooy waxal boppam la mu daan def ax la mu nekkee woon mbokk yi loxo bi bu fekkee ne daan sàcc wala daan na def lu neexul yàlla yàlla dana ko waxloo te yàlloo lu yàlla lu mu wax waxloo wala ku mu wax loo nga wax ndax xam nga rek kii mu kii kii la waxloo mooy borom bi subhanahu wa taala kon loxo bi na nga góorgóorlu ba loo ci def na neex yàlla foo koy teg na nekk fu dagan bu ko teg ci kaw jigéen joo xamante ne daganu la maam jarka loolu ñu bàyyi ko xel yàlla bëggul jullit bi di teg loxo jigéen ne daganu ko loolu sama mbokk Assane Faye sax dama ko siy ñaaxaale waaye fa tabarakallahu lii nga xamante ne mooy nam si xool lu yàlla rawati rawatina nag weeru koor mbokk yi koor nan siy lu baax it lépp loo xamante ne dana andi yiw dana am yiw yàlla na ko ci xool lu mel ni xool nit bëtu yërmande xool nit bëtu cofeel xoolee nit bëtu ñeewanta mbokk yi yooyu dina jur yiw rawatina nag nga di ko xoole say way jur bu weesoo loolu mooy làmmañ bi na nga ci wax lu baax na ko wottu ndax làmmañ am na jikko boo xamante ne moom lañ ci soxla al i'rad mooy dumóoyu lépp lu ñaaw nga bañ koo wax yàlla wax na alquran ne wajtanibu kabla zuur maytaliku leen waxu caaxaan mbokk yi yàlla xamul làmmañ wuy caaxaan waaw léeg-léeg nga wax sa mbokk mu mer wala mu kontaan nga naka dama doon caaxaan rek waaye yàlla xamul loolu de waaw malaka ñu ngi taxaw ñu ngi taxaw loo wax ñu bind loo def ñu bind waaw bu dee kii bind lu baax nag da yàkkamti nga def lu baax mu bind bu dee kii fa tabaarakallaahu ki nekk sa côté càmmoñ boo boo boo defee lu bon wala nga wax lu ñaaw fa tabaarakallaahu mu may la ak diir ngir nga mën a tuubaat dellu sa borom kon mbokk yi lépp lu ñuy wax suñu làmmañ dañ ko xool waaye nay rafet rawatina sa mbokkum jullit mbokk yi jullit du wax ci mbokkam jullitam lu ñaaw jullit du fenal mbokkam jullitam jullit du xas mbokkam jullitam jullit du doyadal mbokkam jullitam mbokk yi lépp luy lu ñaaw jullit du ko teg ci moroom jullitam ndax dañoo wax ne fa tabarakallah li yonente yàlla muhammad wax ci xadis ne laa yaqmalul imaanul mar'i xataa yuhibba li axihi waaye maa yuhibba li nafsihi nee na maxtaar yow sa ngëm yàlla du mat mukk lu dul li nga bëggal papa moom nga bëggal sa bopp muy Willy Bos kon lépp loo xamante ne bu ñu ko tegoon sunu der mu mu naqari ñu mu metti ñu waay waay ngelawaay bu ñu ko teg sunu deru moroom ndax jullit yépp benn lañu innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mu teg si wa taqullaha laallakum turhamuuna mbokk yi jullit du wax lu bon jëm ak si mbokkam jullitam lépp loo nar a wax ci sa mbokkam jullit du ñaaw waay waay noppi ko waaw man kaana yuminu bi billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut mbokk yi yonent yàlla Muhammad nee na bu fekkee ne gëm nga yàlla ne ëllëg dana taxaw sa kanam nga di la régler gëm ba su penc waay waay waxal lu rafet ba nga noppi ci te man man samata naja képp ku noppi mucc doo dégg mukk ñu ne kii dañu ko tëj police ndax dafa noppi kon mbokk yi làmmañ bi nañu ko yar nañu ko sàngaat waaw du du jël maanaam mu jël di ko sàng waaye di nañ su wax lu rafet du mooyu lépp lu ñaaw beneen bi muy tànk bi mbokk yi tànk bi nañu fexe ba du ñu dem foo xamante yàlla gërëmu ko nañuy dem fu yàlla gërëm rawatina nag jàkk yi Seydina Muhammad dafa wax ne kii nga xamante ne ngeen koy gis tànkaam yii mu di ko doxee di jëm jàkka ja kooku na ko seedal gëm yàlla waaw na ko seedal gëm yàlla ndax mu ngi dëkkee di julli ci jàkk kon cër boobu it nañ ko sàmm beneen bi muy nopp bi mbokk yi nopp bi nañu si def walla boog nañu ci déglu lu neex yàlla bu ñu si déglu jëw bu ñu si déglu ay kaa bu ñu si déglu fenn lépp lu ñaaw daal nopp bi nan ko nan ko daw waaye nanu moytu misik musique dafa xaram bu ñu ko déglu waaw musique mooy alquraan yi seytaane jullit bi bu fekkee am na looy déglu alquraan a ngi fi nan ko déglu bu fekkee ne am na looy déglu xasida mag ñu ñu ngi fi waaw xasaayid sëñ Tuubaa yi radiyallahu taala anhu mu ngi fi nanu ko déglu muy neex sunu xol sunu ruux di si dund fa tabarakallahu waa kaw di bég waa suuf di bég xasiday say ahmad ba euh, seydi xaaji malik radiallahu taala anhu mu ngi fi lu mel ni xilaasu zaxab lu mel ni nuune yow nga koy déglu soxol di neex ah di déglu xasiday sirina limaamu alayhi salaam seen zikkar yooyu di di zikkar baatu laa ilaha illa allah sa nopp di ko dégg ñu koy bindal yiw waaye muy neex si soxol sa ruux di dund di yéeg fa tabaarakallah waa kaw di bég waa suuf di bég ko yooyu doon si bàyyi xel dem xasida yi fa tabaarakallah Mawlana Seyxal Ibrahima ñas nga la ay xasidaam yu tedd yooyu nga xamante ne kan lay joobe muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yooyu day indi yiw tey day du day day defar xol ndax dañu wax ne zikrullahi ah sifaul qulub tudd yàlla day weral xol waaw tudd yàlla day wéral xol kon ñàkk tudd yàlla fa tabarakallahu li mu lay jural mooy xol bu xamaat ala bi zikrillah tatma inul qulub mbokk yi ku bëgg bañ a dund stress del tudd yàlla del zikar fa tabarakallahu yooyu nanu ko bàyyi xel ci sunuy nopp beneen bi muy beneen cër mbokk yi muy biir bi biir bi fa tabarakallahu looy lekk mbokk yi ah ba mu nekk riba bu lekk xàqu nit ñi gis nga képp kuy lekk xàqu nit jàppal ne yaa ngi lekk safara te boo dee dem safara te képp kuy lekk xàqu nit mbokk yi boo jullee boo tàllee sa loxo nga wax allahumma yàlla du déglu yàlla du la déglu ndax da nga amee xàq jaam yi kon yooyu nañu ko bàyyi xel cër yi daal nañu ko sàmm cër yëpp laa wax nañu ko sàmm ñu baal ma cër boo xamante ne neexul tudd muy sa pëy muy kanam gi kanam gi nag taxul may wax yaakaar naa ñi may déglu xam naa xam nañu li ma bëgg a wax muy sa kanam na ko sàmm ba fa tabaarakallahu doo ko tàbbil fu la daganul mooy ñi yàlla wax naan qad hafla al muminuuna allazina fi salaatihim xaashiun والذين عن li مغرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للفروجهم حافظون yàlla nee na dëgg-dëgg yi jullit ñi yi texe mooy ñi nga xamante ne dañoo sàmm seen pëy mooy du ñu ko tàbbi lu fu neex yàlla te nag mbokk yi fi ñu toll ci jamono njaaloo njaaloo late na te kenn dellu ci gannaaw kenn ñépp ko woyofal kon yooyu nañu ko bàyyi xel ndax ëllëg yowmal xiyaam yàlla day wax loo cër cër yépp di wax kon loolu moo nekkoon seen yóbbalu tey